للذي مدى بخير سلفا وكوني العبد الخديم مولفا زال عباداتي وزال خدمي سفا كلي بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أبى لي ولي كان بأمن ذو توجه الخباب mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw bi ñu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeesalaat suñu eh, njébbal ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke mi ñu booleel di ñaanal Cheikh Mountakha xalif général des mourides mu yàgg fi lool te wér Mbacke noonu lañ koy ñaanalee Cheikh Abou Baraka mi fi nekkal sëñ Fallou moom tamit mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal suñu buntu sëñ Fallou mu sëñ Modou Massamba Fallilou moo yàgg fi lool te wér kàddu yi nag kàddu ndigal la yu jóge ci sëñ abo ci kaamil gi nga xam ni eh, dañ ko yeesalaat mbubb mi ndax 2014 la première édition bi génnoon yàlla dogal eh, ci ndigal sëñ abo ñu war ko yeesalaat liggéey bi defaraat ko nu mu gën a yànjee ndax sëñ fàlloo tol noonu mbind mi nag mbindum sëñ fàllu la muy alxuraanul karim waaw yaasalaat nañu liggéey bi jébbal nañ ko suñ abo mu jox ñu si ndigal ku si bëgg barkeelu mun nga mun nga si barkeelu waaw lii daal moo doon soññee bi rek ñu ni woon xaaral nag ñu jàllale ko euh, mbokku taalibe yëpp mën koo dégg ak mbokk jullit yëpp ndax suñ fàllu moom du tarixa murid rek ko moom Cheikh Mahamadou Fadal moom dafa universel waaw loolu mbirum mbirum yàlla la waaw Cheikh Mahamadou Fadal moom chrétien ak musulman ak ñëpp ko soxla waaw kookoy sëñ Fallou mbind mi nag mbindum loxoom la jàññan nañ ko daal suñu kémtilaay kàttan di ñaan daal taalibe bu si bëgg am dinañ leen bàyyil numéro yi nga xam ne fii si diwaanu Touba am na koo xam ni euh, bu ñu jox kook moom dina leen jottali euh, xibaar si kaamil bi fan lañ ko mën a amee bu dee Dakar it dinañ leen jox numéro ku ko soxla fan la ko mën a amee. ñu def ay leeral si kaamil bi ndax kaamil bi. Euh, jëlee naa si sëñ Afia Bousso euh, imaamu grande mosquée bu Touba ne bi ko sëñ Fallou bëgg mool euh, xaw na see sonn lool ndax Maroc la ko mujj moolee waaw kooku mooy premier mool bi am na nag ay mag ñu ko fekkee ñoo xam ni am nañu kaamil boobu ndax sëñ sëñ Afia imaam nee na ma sëñ Afia Bousso nee na ma ni moom sax si la jàngee alxuraan waaw moom eh, yàlla dogal na it ginnaaw bi ñu gisanteeg sëñ Abo moom tamit am na si kaamil yi barkelu si waaw eh, eh, fas yéene ne nii doomu sëñ Fallou yëpp di képp kuñ si mën a jokkoo rek dinañ ko jox mu barkeelu si liggéeyu waajuram waaw mbind mi nag ah def nañu daal ba ki am weer ki ñàkk ki nga xam ne bët yi neexul sax dina koy ndax dañ koo gën a agrandir waaw euh, pour mu gën a leer si bët yi ndax euh, dégg naa ni première édition bi man nag loolu comme fekkewuma ko euh, mbir mi sewoon na lool waaw wante bii nag moom yàlla dogal na liggéey nañ ko liggéey boo xam ni mbind mi gën naa neex a jàng waaw kaamil bi nag dafa ànd ak dafa ànd ak pochette bi pochet bi moo nekk nii pochette bi moo nekk nii waaw kii moom mooy pochette bi genre étui la boo xam ni ci la kaamil bi di dugg kaamil bi nag mi ngi nii waaw kaamil baa ngi nii kaamil baa ngi waaw waaw ñoo ngi jégalu ci kàddu yi nag di xam ni doomu aadama moom eh, mun naa juum ci wante lépp loo xam ni juumte la rek ñoo ngi koy jéggalu taalibe xam ni nit a matul wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu ناجاني الآن عند المسلمين بما غدا منه وما المهلكين الله جل أهد الله أصمد الذي على الغلام